أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العظيم المنة الذي جعل الصوم فتنة لأوليائه والجنة وفتح لهم به أبواب الجنة وعرفهم أن وسيط الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة وأن بخمسها تصبح النفس المطمئنة ذات الشوكة في التقلب في التغلب على عدوها أو يرمونه والصلاة والسلام على سيدنا محمد قائد الخلق وممثل السنة وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار الصاحبة والعقول المرجحة عونك يا معين وبك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk jullit yi gannaaw bi ñu leen nuyoo ñoo ngi leen di siyaatal leen ndokkeel ci weeru tedd bi tey leen ci baalu ak tey ñaan suñu boroom jéggal nu ñun ñëpp suñuy bàkkaar yu nu xam ak yu nu xamul ci barke weer yi ak ci barke ngëneel bi mu xam na na làmboo gannaaw bu loolu wéyee nag kon mbokk taalibe yi weeru koor comme ni ko mbokk yi tedd waxe ci seen waxtaan yi weesu woon day weer wu tedd bu barke te bari ay ngëneel ñu baax ñu daan ko waajal di ko feextoo ak mbégte daan ci yokk seen jaamu yàlla yi ñu daan def ci yeneen weer yi ngir xam li ñu xam lan mooy weeru koor ak lim làmboo ci barke ak ngëneel ci xéewal jaam bi kon war ci waajal boppam fexe ba moytu lépp loo xam ne dana tax weeru koor ñëw ba dem sa du ko yóbbaale dara ci aw yiw mu fexe ba këram yépp mu tënk leen ci ak njub te moytu lépp loo xam ne ngërëmul yàlla nekk te rawatina aw làmmiñ ndax làmmiñ day màbbu jëf ci baax di xañ jaam bi ëllëg tuyaabee jaam yàlla yi nga xam ne daan na ko def ci àdduna moo tax comme ni jaam bi bu fexee ba sàmm làmmiñam ci di ci def yëpp danañ mën a sàmm ngir suñu borom man koo nangul kooram fulal ko ci barke weeru tedd wi kon nag waxtaane ko ñu ko jëmale ci ñeenti tomb bi ci njëkk di at mi nga xam ne dañ farataal koor ak ngëneeli koor ak sart yi tax koor war ak àtte jigéen ji nàmpal ak ki nga xam ne dafa ëmb ak ki nga xam ne dafa tële te mënta woor kon yooyu tomb bi ko waxtu mayee moom lañu bëgg waxtaane insha allah ñu ne at mi nga xam ne kon ci la suñu borom farataal koor ci xeet yonent bi alayhi salaatu wasalaam borom xam-xam dañoo wax ne koor suñu borom ñu ngi ko farataal ci xeeru ci bisu altine ci weeru baraxlu dëppoo ko atum ñaareel na ci gàddaay yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñu wax ne boobu jamono nañ daan woore mooy duñ ma saa dog ba noppi lépp luñ sañ a def ci diggante biñ dogee ba ba ba ba ñuy julligee te lañ koy sañ a def moo xam lekk la wala naan wala wéetee ko soxna wala nelaw wala leneen ñu xasee ji liggéey nag ba noppi kenn du sañ a defati dara ci yooyu ñu wax ba ca doon di dogaat ci ba ca topp suñu borom xam ne kon loolu gis na ci ñoom ngir ne daana am ñu daa fas ndigal loolu di wéete seeni soxna mu far kon na saxal àtte boobu wax ne yéen kat kuntum taxtaluuna anfusakum fataaba alaykum wa afa ankum falaa tubaashiruuhunna wabtaghuu maa kataba Allaahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytu al-abyadu min al-khayti al-aswadi min al-fajr mu ne gannaaw loolu ma leen digal gis na ci yéen ngir ne daana am ñu daa fas ndigal di diwéde seeni soxna kon bu ngeen dogatee dee leen lekk di naan di def li ngeen sañ a def ba keroog fajar bi fenk gannaaw bi ñu xamee kon at mi nga xam ne ci lañ farataal koor ci xeet Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ak nañ gën ko doon ak nañ leen ko digale woon ñu ñëw kon ci lenn ci ngëneel yi nga xam ne koor làmboo na ndax xam ngëneel ak jaamu yàlla dana tax nit am ci ak cawarte dana waral it mu fonk ko nam ware dana ko jural ci nit dolli ko yaakaar ak xemeen fayu ëllëg yomal ko yàlla ndax nit lu mu xamul dara jaam xamul ngëneelam fonk ceel ga ak warmaal ga ca war day def ci moom ñu ni kon nag bokk na li ñu fekk ni ngëneelu koor mooy xadis bi nga xam ne Abu Hurayra radiyallahu anhu ci moom lañ ko jëlee wax na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni as-siyaamu junna fa ida kaana ahadukum qaa'iman fala yarfus wala yajhal fa in imru'un qaatalahu aw shaatamahu fa yaqul inni qaa'im walladi nafsu muhammadin biyadihi la xuluufu kam min qaa'im ajrun inda allahi min rafin yatruku taamahu wa sharaabahu wa shahwatahu min ajli fa sawmu li wa ana ajzi bi wal hasanatu bi ashri amsaaliha dafa wax ne kon koor ak pàcc la maanaam day dox diggante ci woor ak xeeti mooy yàlla yi di doxit digganteem ak sawara mu ne nag ku woor ci yéen bu mu def dara lu yàq kooram ci wax wala jëf bu mu defee jëf yu suube yu wane ak njafe bi wala ak ñàkk xam ci moom bu ko nit saaga woon sax di xuloo moom bëgg a xeex ak moom na bàyyi xel ne ci koor la nekk bañ a xeex bañ a saagaan mu daal di gis moom yonente bi alayhi salaatu wasalaam yi xetu jimiñu aju woor de moo gën a tey fa suñu borom ci xetu parfum bi ñu bi ñuy wax nit mu waxit ne ci woor dafa bàyyi bànnee ci bakkanam bàyyi lekkam bàyyi naanam bàyyi la bakkanam bëgg lépp ngir sama jëm waaye na xam ne koor maa ko moom man yàlla sama koy fay bu ëllëgee kon li ñuy xamal ngëneelu koor ci xadis bi mooy jël gi mu jël koor moom suñu borom wéer ko ci boppam wax ni moo koy wax ni moo ko moom su moo koy fay te ku na xam ne ne jaamu yàlla yëpp moo koy fay waaye koor daf cee ëpp ngëneel moo tax li mu waxit ne xetit gi nañu aju woor moo dàq nit ba suñu borom loolu day tegtale ba tey ngëneelu koor ndax ci woor dafa juyoo ak bakkanam dog bànneexam yëpp ngir jëm suñu borom kon bu demee ba suñu borom gërëm jaamu yàllaam googu ba wax ne xet gi mu koy jural sax moo dàq nit kon xam ne ku ne xam ne ngëneel mën ko yokk lool ndax xet boo xam ne topp ndigal ak bàyyi tere moo ko jur du mën a yemoo ak xet boo xam ne leneen a ko jur lu bokk topp ndigal ak bàyyi tere ba tey bokk na ci ngëneelu koor ràmm bi muy ràmm jaam bi ëllëg yawmal qiyaama ndax jëlee nañ ci Abdullah ibn Amr mu wax ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ni as-siyaam wa qur'aan yushaffi'aani al-'abd yawmal qiyaama yaqulu as-siyaam ay rabb mana'tuhu at-ta'aama wash-shahawaati bin-nahaari فشفعني به ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني به فيشفعان dafa wax ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na ni koor ak alquran dañuy sàkkul jaam bi ak ram am ram ci sunu borom ëllëg yawmal qiyaam su ko defee koor day ñu wax ne yow sunu borom sa jaam bi kat maa doxoon digganteem ak lekk dox digganteem ak ay bànneexam ci bëccëg kon maa ngi lay ñaan nga ramaloo ma ko tey alxuraan moom it ñu wax ne yow suñu borom sa jaam bi kat maa ko teewoon nelaw maa ko teewoon nelaw guddi ngir fanaanoo gu ma daa fanaanoo di ma jàng ak di ma naati la kon maa ngi lay ñaan fii tey nga may ma ma ramm ko nee na su ko defee suñu borom nangu leen seenum ramm digal leen kenn ku ne dem ramm ko daa sonn ci àdduna te yàlla rek tax ñu ne kon nag jaam yàlla boo xam ne boo ko defee mu sàkk la ëllëg am ndam ko suñu borom suñu borom nangu am ndam moom boobu jaam yàlla bari na ngëneel te jar naa fonk jar naa formaan bokk na ba tey ci li tegtal ngëneelu koor ak ug màgg dara jaam jagleel gi ko suñu borom jagleel ak bunt ca bunti àjjana yi ñu di ko wax baabu rayaan nga xam ne bu ëllëgee day am ku taxaw ci pénc mi di woote ñu ana ñi daa woor ci àdduna te yàlla rek tax ñu ne ñoo ngi nii ñu ne leen ñëw leen dugg bu mu duggee ba ñëpp jeex nag ba ci mu jëm ci ñoom dugg ñu daldi tëj bunt boobee kenn duut fa jaar loolu ba tey kon tegtale na ngëneeli koor ak dara jaam juree li nga xam ne moom la ko suñu borom jox loolu nag day ak xadis boo xam ne nii ku ñu wax Sahl ibn Sa'd moo ko jëlee ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam te mooy lu mu wax ne inna lil jannati baaban yuqaalu lahu rayyaan yuqaalu yawmal qiyaamati ayna qaa'imuun fa idaa daxala aaxiruhum uxliqa dalika albaab min ci saxiixu Buxaari ak saxiixu Muslim kon nag mbokk yi ngëneel weeru koor xaj na mënu si wax lépp mel na ni kon liñ si jot a wax doy na xaj na ku ko dégg dana xam ne weeru koor weer la wu jar a fonk jar a warmaal du weeru caaxaan du weeru ko weeru jaam yàlla la du weeru jóg ak bokk du weeru dimbalee du weeru fajal fajal aajo sa mbokkum jullit du weeru ñu baalante ak di weeru ñu tàggoo ak ci bàkkaar di weeru njéggal di weer wu ñuy defaroo di weer woo xam ne mën na cee dabaatal lu bari ci loo xam ne faatu na ci ay jaam yàlla di weer wu ñuy jubbantee bakkan di ko ci tàggat ba mu yaru ba mën a miin jaam yàlla ñu ne woo xam ne day tàqoo ak moom ci weer yëpp te bañ a doon jaam yàlla boo xam ne nii wenn weer lañ koy jagleel su xasee wéy jeex na bakkan delluwaat ci lam ne woon loolu ku ne xam ne taxul koor jóg koor li ko tax a jóg wala boog bokk na ci li ko tax a jóg mooy yar bakkan ak tàggat ko dama mboolem bànneex yi nga xam ne ñoo ko yóbbu ci ak mooy te loolu mooy li suñu borom daañale ci aaya moom wax ne laalakum tax laalakum tattaqun te moom wax ne yaa ayyuhal lazina aamanu kutiba alaykumu siyaamu kamaa kutiba alal lazina min qablikum laalakum tattaqun farataal naa koor ci yéen ndax ngeen mën a moytu li ma leen tere kon nag gannaaw xamee ngëneelu koor ñu ñëw kon ci sart yi nga xam ne kon mooy tax koor war sart koor dañ koo xaaj ñetti xaaj dafa am sart yi tax koor war ak yoo xam ne day tax koor gi war ak di ko tax a baax ñu di ko wax ñu di ko wax suróotu sixa usuróotul waajib usuróotul wujub ak sart yoo xam ne day tax koor gi rek baax kon sart bu njëkk bi te mooy yi nga xam ne mooy tax koor gi war mooy yi bi ci njëkk mooy nekk mag kon gone koor waru ko waaye nag bëgg nañ mu di ko def ndax mu taamu ko boobu màggee mën koo saxal ñaare ba mooy am kàttan ci mën a woor ki nga xam ne daate li ngir ak mage wala feebar wala leneen loo xam ne dafa nekk ci moom ba mënta woor kooku koor waru ko beneen fàtt mooy lii tax koor war te di ko tax a baax mooy amam xel maanaam ànd ak sago ndax ab ba sago sagoom koor waru ko te su ko defee nit du baax ñaari la bu dee jigéen na set ci deret baax wala deret wasin jamono yi deret di génn ci moom koor waru ko te su ko defee du baax beneen bi mooy sàpp ñetteel bi te mooy bii tax koor di baax mooy nekk ci diine lislaam ak yëfat bu wooree du waax du baax dañu wute nag ci wax ndax war na ko wala waru ko te waxoon nañ ni koor war na ko wante bala ko mën a def waaw bu tudd na ñu ñëw kon ci bi ci def te mooy li ñuy jeexale mooy àtte ci nàmpal ak ki nga xam ne dafa ëmb ak ngam dafa tële woor ngir feebar ñett ñooñu borom xam-xam dañoo wax ne bu dee ko jëkk yi te mooy ki nga xam ne day nàmpal bu ragalee ne bu wooree di nàmpal ba ko ne xale bi muy nàmpal mën na see def te amul keneen ku ko mën a nàmpal wala sax ku ko mën a nàmpal am na fi waaye xale bi moo nanguwul ku dul ndeyam kon kooku dog day war ci moom bu dee nag ragalu bakku na xale bi def ci wante koor gi mën na koo jural néewum sow ak manqué lenn ci vitamine yi nga xam ne ñoo daan jox xale bi kàttan akub cawarte te su boobaa loolu mën naa war a ci xale bi ak néew doole akub lompañ kon dana sañe dog bañ a woor ngir mu sàmm ko bakkanu xale bi ak wér yaramam waaye nag fay dana ko ak maanaam suy fay bis yi bopp yi nga xam ne wóoru ko woon te nàmpal waral ko faaw mu boole ci kon li ñuy wax leele maanaam bis bu muy fay bu ne dana ca boole wut lu rek ak miskin ci ceeb mbaa ceeb jox ko loolu moom la borom risaal di wax ne walil mordin in xaafat ala waladiha walam tajid man tastajiruhu lahu aw lam yaqbal xayraha ak an tuftira am bu dee jigéen bi nga xam ne nag dafa ëmb te ragal ne bu wooree mën na ko jural ngaañ ci doom ji wala sax moom ci boppam te ragal googu ñu wax bañ a doon loo xam ne nii dañ ko teg ci kaw njort rek day fekk tey mu doon loo xam ne natt na ko ci boppam ba xam ko mu dal ko dara ci ko nga xam ne saa yu ma saa ëmb ba toll ci mu toll ci weer woowu boole ko woor mu jural ko ngaañ lu metti loo xam ne du mën a àggale koo am ci dog doom lay mujj wala sax médecin bu xam mbirum jigéen ju wérul xam wàllu yaram ak la ci aju lépp moo ko seet ba gis ne moom ñi te mënta woor bu wooree kon faaw mu jural ko ngaañ mu jural ko kon mu bañ a woor su boobaa kon yoon may na ko mu bañ a woor borom xam-xam ne dañoo wute ci ne ndax moom buy fay bis di leela dana ko war comme ni mu war a ciy nàmpal wala leela waru ko loolu nag day ñaari wax yoo xam ne biñ ko seete ñoom borom xam-xam gis nañ ne la ci gën a siiw ngir mi ñu nekk mu ngir imaam Maalik mooy leela waru ko fay dong lay def ndax moom dañ ko jàppe comme ku feebar te ki feebar leela waru ko kon moom it ñu ne kon du leela loolu boo demee moom misaal di wax ne wa isaa xaafat al xaamil alaa maa fi batnihaa akthar wa lam takun waahidatin kon ñu taxal ko benn asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu